te eh, pouvoir bi mais opposition bi aussi eh, seetlu neen si Thiaw gannaaw ba kii rek di Serigne Moustapha si annoncé eh, croix coalition bi nga xam ne mun nañu wax ak quatre partis ñoo si ndar bopp mu nekk parti PUR parti PASTEF PDS ak Taxawu Sénégal bu xalifa Sall ban lecture ngay def par rapport ak cette annonce. ñoom coalition bu bu bu am bu nar a am doole parce que boo boolee euh, PDS PASTEF euh, taxaw et puis bon parti yu mag lañu am nañu expérience euh, politique Euh, am nañu expérience aussi gouvernance euh, gouvernance locale mhm. euh, defe naa daal de de de de quatre leaders yu nekk boppu parti yooyu leader yu ñu yu ñu ràññ la mhm. parti yooyu aussi am nañu ay ñu ñu ànd ak ñoom ci élection surtout deux mille dix neuf et même depuis <laughs> pour le PDS mhm. PDS am na expérience donc suñu mënoon boole loolu expérience politique bu bees lay nekk Euh, que que que dinañu mën a en tout cas gën a am chance gagner commune wala ay département mhm. parce que Benno su fekkee euh, juumoo daal euh, Benno moom mas a gagné élection depuis 2012. tout à fait donc su fekkente coalition boobu mën na taxaw mën na jàkkaarloo ak Benno loolu rek mooy chance pour vraiment am de des communes et, et, c'est vrai que Euh, lu rëy la. Mhm. mais lu jafe la. Mhm. lu jafe la pour pour ñu am une coalition bi nga xam ne ñoom ñëpp dinañu ànd euh, am liste commune ci euh, ci commune ci commune yi am liste commune ci département yi du du vraiment du yomb ci ñoom. est-ce yaakaar nga ni ku mel ni comme PASTEF wala PDS dinañ nangu ku. jiital euh, mu ke kenn si moroomam euh, jiital ko aussi est-ce que seen ànd yaakaar nga ni dina nekk loo xam ne dafay war yomb. non non du yomb du yomb surtout surtout ci département yi. tout à fait ci ci ci département boo xoolee euh, département Ndakaaru rek. pour ñoom ñeente ñu d'accord mais kii mooy suñu candidat pour mairie de Dakar du yomb. <laughs> Ah, ku nekk si ñoom bu gën a jël département. e la ville de de Dakar. Mhm. Euh, donc il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu jiital ay critères. Mhm. ah ay critères c'est-à-dire que kii am na expérience euh, communale am na expérience politique am na expérience management donc il faut mu nekk des critères politiques objectifs. Mhm. donc loolu il faut vraiment ñu ñu nangu toog waxtaan. ci commune yi aussi naka noon parce que am na ay communes yi nga xam ne. bon PDS moo ko mës a gañe PDS du gaaw a nangu mhm. keneen ñëw jiite leen mhm. euh, donc loolu dafa laaj euh, sincérité ak ak confiance mais surtout ñu am des critères objectifs mhm. waaye bañ a nekk daal euh, ay des critères subjectifs ki kii mooy PDS def naa daal suñu moytu problème yi foofu la nar a jóge cest à Euh, yenn communes yi. Mhm. il faut ñu ñu ñu toog seen biir. Mhm. waxtaan mhm. pour xool en tout cas le meilleur profil. vraiment suñu suñu mën suñu suñu discuter wul pour avoir le meilleur profil. ça mhm. euh, dafa mel ni problème yi euh, dox na parce que bu ñu gisee euh, ku mel ni comme Thierno Bocoum gis neen mu defoon benn post di ŋàññee ñeenti ñi nga xam ne ñoo bëgg a ànd ñu gis ne aussi démb mu def organiser aussi conférence de presse nga xam ne ñi ju bëri dajoo leen rawatina sa ñii di journaliste yi moom dafa jàpp ne coalition bi coalition de pression la euh, ak tamit ay calcul politique euh, politicienne ñu se aussi Abdoul mbay aussi euh, def na benn poste du parle di di wo di wax wax wàllum duperie ñu gis ne carrément ñooñu ree ñu bëgg ko ñu bañ ko dañoo am seen mot à dire si wàllum langum politique bi ñëpp xam neen kan mooy Abdoul mbay il a été premier ministre Thierno Bocoum aussi xam neen ko nekkoon na fi communication réew mi nekkoon na fi aussi député finalement divergence yooyu nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci opposition bi est-ce que du faire euh, l'affaire euh, de benn Bokk Yaakaar pour ne pas dire euh, du président Macky Sall. non c'est sûr c'est sûr que euh, bon ak Thierno Bocoum ràññee nañu leen ci opposition bi que ñoom lu ñuy critiquer Euh, Macky Sall euh, nëbbutuñu wane nañu ko opposition bi la la ñu bokk. Mhm. Euh, jaaduwul ñooñu ñi nga xam ne depuis 2012. tout à fait ñu ngi xeex pouvoir bi mhm. ngeen taxawal coalition fekk gisoo leen. ngeen bedd ah, mel ku leen beddoo ngeen beddoo seen biir. Mhm. loolu aussi suspicion lay indi. suspicion lay indi Abdoul mbay li mu wax lu lu leer la Thierno aussi li mu wax lu leer la cest dire que am na ñu doon waxtaan seen biir. ak Sonko wala ak Khalifa. Euh, ñu yeewu dégg coalition boobu loolu politiquement da ngay créer suspicion. et suspicion baaxul euh, ci ci opposition bi et c'est vrai que gouvernement bi rek moo moo ci nar a parce que euh, soit. xali kii Khalifa ak Sonko ak PDS ak PUR ñu dem taxawal seen coalition wala ñu taxaw dem ci Abdoul mbay dem ci cerno euh, Bocoum euh, samp waxtaan. Mhm. Euh, bu fu ñu mun a juboo ñu juboo lu gën mooy ñu ànd ñoom ñëpp loolu loolu moo gën ci ñoom ñëpp. parce que mhm. amul benn parti bi nga xam ne mën na jàkkaarloo ak benn. Mhm. mu muy ci région bi mu ci commune def naa loolu ñoom ñoom ñëpp am nañu conscience boobu bon plus maintenant caution bi bi ñu wax. ah loolu war na ubbi xel opposition bi parce que parti yu bari amuñu xaalis. amuñu xaalis pour pour financer seen seen seen liste. Mhm. donc suñu boole woon suñu seen seen doole dina gën a yomb dina gën a yomb ci ci ci ci opposition bi mais nag lu ñuy ragal mooy que euh, Abdoul Mbaye ak euh, Thierno am na ñu ànd ak ñoom. Mhm. am na ñu ànd ak moom su fekkente ne jubawuñu soo moytul dina am beneen coalition. wala yeneeni coalition. Mhm. et loolu su amee trois coalitions. de l'opposition c'est sûr et certain que Benno dina leen euh, dina leen gagner euh, en tout cas ci ci ci département yi nga xam ne am nañu ay enjeux mm-hmm. Benno euh, Benno du du ko fowe tout à fait euh, monsieur Sy euh, bu ñu xoolee coalition yi nga xam ne ñu ngi commencé euh, dessiné wu ñu gis carrément PASTEF ak leader anti système PDS ñëpp xam ne carrément seen jamono PS aussi parce que bu ñu ne PS Khalifa Sall ñu bëgg ko ñu bëgg ñu bañ ko bokk na si PS 40 ans yi nga xam ne PS am na ko ci pouvoir bi am na lu bëri loo xam ne. Gueye joué na ko fi pur aussi euh, la même chose aussi gis neen récemment avec euh, les problèmes yi nga xam ne am neen ko au sein de leur euh, parti tey finalement est-ce que idéologie de parti la ñuy jiital wala gëm-gëm yi sax Sénégal wala sax mun nañu wax ne finalement ay calcul politique politicien la ñu seetlu aussi ci coalition yi nga xam ne ñoo féetoo ci kujje bi aussi waaw bari na bari na calcul mhm. bari calcul parce que en tout cas bu ñu xoolee 2019. Mhm. bon bu ñu jëlee repère 2019 euh, taxawaay PDS leerul. tout à fait PDS mënoon na joxe consigne. Mhm. Euh, soit pour euh, Idriss Seck ou pour Sonko mais defuñu ko. Mhm. dañu toog fële boycotté. bon depuis 2019 ba tey ji PDS nekkul dëgg-dëgg ci opposition. Ah, ñu ngi ci mouvance opposition bi. mais PDS la ñu gën a la ñu gën a sàmm. Mhm. Ah, loolu peut-être que nañu leen reprocher loolu mais euh, tey jii taxawaay PDS moo doon nekk chef de l'opposition. Mhm. mais defuñu ko loolu calcul la. Mhm. Ah, dañuy calculer que ñoom dañu bugg a demal seen bopp mais saa ñu soxla opposition ñu dem ci opposition loolu calcul la. bon euh, Khalifa ak Sonko euh, ñoom. opposition bi lañ doon seet. Mm-hmm. naka la ñuy fexe ba dajale opposition bi. Mm-hmm. mais defe naa euh, loolu aussi euh, calcul la moom moo moo moo nekk ci gannaaw que Sonko am na parti am na influence euh, am na score bu baax ci élection 2019 mais dafa bugg a nekk moom tamit chef de l'opposition loolu mm-hmm. aussi am na am na calcul. bon Khalifa socialiste la. te xam na ne euh, diggantam moom ak PDS ak Sonko bokkuñu sensibilité. Mhm. donc moom aussi mu ngi calculer. Mhm. donc soo jokkee maintenant ñeneen euh, yeneen camp yi mooy ñoom Abdoul mbay ñoom Abdoul Mbaye ñoom Mamadou Lamine. Thierno Bocoum le le le, le Sall. Mhm. lo ay cadres lañu. Mhm. c'est des cadres c'est des techniciens. tout à fait euh, ils sont dans la politique mais pas comme les autres. voilà ce sont des hommes d'État on peut dire ñoom mhm. tamit ñu ngi laal seen stratégie. tout à fait donc ça veut dire que les partis classiques ñu ngi ci stratégie bon les cadres les cadres politiques sont dans les calculs ce qui fait que ñoom amuñu manager. Mm -hmm. opposition bi dafa amul manager mhm. et soo amul manager que bon équipe bu nekk day wax ne ñun on est la meilleure équipe mhm. et c'est ça defe naa euh, tant que amuñu manager bi nga xam ne mën mën na xool ñoom ñëpp ku nekk kan mooy lan mooy sa force mhm. loolu moo manqué opposition bi ce qui fait que ñuy calculer loolu tax d'ailleurs euh, coalition bi test bu rëy la pour ñoom ñëpp ci local yi su su su suñuy échoué ci locales yi c' est sûr et certain que dinañu dinañu yëg majorité présidentielle fii ak euh, législative présidentielle. <laughs> on parle souvent